Euh, président pour jeexal rek euh, xëy na kon mandat euh, président parlement bu CEDEAO jeex na fi mu toll nii naka lan lañ la mën a séntu pour nga jubluwaate fi mu toll nii. man koy ay mandat moom dama cee pare. <laughs> liggéeyal naa Sénégal ñeenti mandat liggéeyal CEDEAO ñaar ñeenti mandat waxoon naa ko. mbiru wote ñu may fal ay mandat yi député ak di leen ci pare naa ci li ma bëgg kay mooy toog nekk nag ab militant boo xam ne bu libre la. bu moom boppam bu ma gisee loo xam ne baaxul dëppoowul ak li président Macky Sall digoon askan wi dëppoowul ak politique bi mu définir te ñépp d'accord ne baax na waaye ñu jox ay ministre wala directeur la ñuy jël ñu bëgg koo càmmooñoo xaalis ba ba pare bëgguñu tàccu leen danaa ni leen yoon wi ngeen jaar baaxul teggi leen yoon wi danaa ko dénoncer bind ko wax ko président de la république ak bu ma ñi ma ñi ma ko mën a wax foofu laa bëgg a taxaw beneen biir bëgg na maa taxaw kuréel goo xam ne ci ñi nga xam ne dañu néew doole la jëm mooy couche vulnérable yi bokk na ci ñi nekk ci prison yi ndax am na ñu ñu daan tëj leen te defuñu dara dafa ñu nekk metti ñenn ñi feebar ñu tëj leen te mënuñu faa jóge ñenn ñi amuñu mbokk yu leen fa mën a fekk te tëj gi léeg day yàgg duñ leen jugé ma bëgg a taxaw association bi may taxaw muy euh, euh, rajop mu taxaw ci di leen toppatoo gone yi nekk ci mbedd mi it ak yenn daara yi ma taxaw ci lu ma leen mën a jàppale ma jàppale leen li ci des nag ci bay ak sàmm ci laa bëgg a dellu ndax foofu laa nekkoon am naa jot gu ma ko defee képp koo xam ne ki bëgg na ci ànd ak man ñu ànd ci am naa ñu ci xarañ xam naa leen ñu mën a gasi teen ñu mën a defar suuf ñu mën a andi jiw woo xam ne loo fi bay mën nga ko yóbbu bitim réew muy fraise muy lu demee ne avocat mooy lu demee ne tamaate lu mel ni xaal am nañu ko soxla ci Amérique latine te bari na ay milliards lañ ci soxla ñu defar suuf yi wax gone yi ñu jéem a bay buñ paree sàmm gi ñu jëm ci développé ko gudul sàmm gi wuti ay nag Afrique du Sud wuti ko Espagne ak ci xar ak ci bëy ñu sàmm ko réew mi développé man loolu ci laa xalaat mooy sama fi nga xam ne foofu laa war a toog li des ci suma àddina ma consacré ko waaye politiciens yi moom dootuñu ma tardel ndax ñoom ñëpp ñuy wax nekk ci opposition ak ci parti pouvoir 80% yi li ñuy wax gëmuñu ko gëmuñu seen bopp dañuy nax nit ñi ak wut fu ñu dundee ci kaw nit ñi liggéeyalu kenn seen bopp la ñuy liggéey loolu nag amul njariñ ndax gannaaw luñ la jox nga def ko ci sa poos ba pare na nit ñi laa fi nekkal loolu ay nax la ndax doo waxal nit ñi dara lu leen jariñ ak loo xam ne danañ mën a am seen autonomie ba mën a liggéey am kër gu baax ami soxna di lek lek bu baax loolu nag buñ ko deful day mel ne dañuy nax nit ñi. la crédibilité notre credo. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. kumpa tàggoon ak yéen.